cérémonie bi dañu nekk cérémonie bu solennelle muy passation de service entre deux ministres. Merci. Hamza. yéene ko إلا الله jërëjëf Doudou Ndiaye ne moo ma ñor ak Benno Bokk Yaakaar 1968 ba fi mu ne maa ngi parti socialiste waaye jëmm ji mësumaa gis ku mel ni moom mësumaa gis ànd na maa ngi responsable bu ne maam ma sàll mooy sama nijaay léeg maa ngi dëkk ñaaxeen fa nekk conseiller municipal parti socialiste waaye ku mel ni jëm ji mësuma koo gis a Karim yaa man ci jàkka yi yaa man ci jumaa yi yaa man ci dëj yi yaa man ci ànd na maag leader bu ne seetaan naa liggéeyub leader bu ne waaye ku laa tiim mbooleem kado yi ñu la jox kaamilu alxuraan boobu ci gënal alxuraan a ci sa bii leneen lu ko fekk day alxuraan rek alim doy dalal jàmm yàlla na la yàlla dalal jàmm mu sedd guy barke Seydina Mohamed Macky Sall di liggéeyal yal na yàlla gën neena dolli ndam. jërëjëf colonel Faye bi. Faye bi xam nga ministère bi yal na la yàlla la fa def. Malick Sarr jërëjëf. directeur yëpp jërëjëf. merci yal na yàlla fay leen. ni ngeen déggoo woon ak kii yàlla na ngeen ni déggoo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Monsieur le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, mon cher frère Alioune sama dëkkandoo la ñaari yoon dañ nekk dëkkandoo mbaaw waaye ñu nekk dëkkandoo conseil des ministres ci table conseil des ministres ni ma toogee ak moom nii la ñuy toogee monsieur le secretaire général du ministère de l'environnement et du développement durable Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames et Messieurs, chère population de Mbao, de et de Dakar Plateau, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les membres du personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Mesdames, Messieurs les distingués invités, à vos rangs, titres, grades et qualités, je voudrais vous dire merci. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque le passage de flambeau entre deux ministres de la République. Comme il est de coutume, La solennité qui entoure cette rencontre témoigne de son importance dans la marche de l'État. Elle constitue un moment fort et riche en enseignements. Après trois années et cinq mois à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable, je laisse la conduite des affaires à M. un collègue et frère. Comme disait l'autre, je cite, Les hommes passent, les institutions demeurent. Fin de citation. Un regard rétrospectif permet de mesurer tout le travail que nous avons abattu ensemble Nous avons effectué des visites dans toutes les régions du Sénégal et à l'étranger pour matérialiser la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Dans la même période, nous avons fait adopter la loi sur le plastique, la loi sur la biosécurité, ainsi que le nouveau code de l'environnement qui sera bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. Dans la même dynamique, nous pouvons citer le classement historique de neuf forêts, la création de plusieurs aires marines communautaires protégées, dont celle de Gorée. Le programme Xëyu Ndaw ñi est devenu une réalité au ministère de l'Environnement et du Développement durable et permettra, j'en suis sûr, de matérialiser l'ambitieuse initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, le PSE Vert. Je peux également citer la création de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte dont le directeur ici présent, mon jeune frère Oumar Ba. Cette agence dont la mission est de faire un reboisement inclusif du territoire national et un reboisement durable. Monsieur le ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je ne serai pas long. Je ne serai pas long car il ne me reste que des remerciements. Remercier, à l'endroit de son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui depuis 2014 me confiait des responsabilités. D'abord en au Fonds de développement du service universel des télécommunications, puis au Conseil de l'autorité de régulation des télécommunications et ensuite directeur général de l'autorité de régulation et des télécommunications, ARTP, puis au ministère de l'Environnement et du Développement durable en avril 2019. Je lui renouvelle ici solennellement ma disponibilité, mon engagement et ma loyauté. Je voudrais également remercier tous mes collaborateurs du ministère de l'Environnement et du Développement durable, sans exception. Monsieur le ministre, je puis vous assurer que vous trouverez sur place des hommes et des femmes sur qui vous pouvez compter pour mener à bien la mission qui vous a été confiée par Monsieur le Président de la République. Merci également à toutes les populations du département de Pikine, de la commune de Mbao, de Orkadiéré et de toute la région de Matam et de toutes les autres régions. Je voudrais réserver les derniers passages de mon discours à une personne qui, par la grâce de Dieu, si ce n'est elle, rien n'est possible. Il s'agit de mon épouse Mariam, à qui j'adresse mes vifs remerciements Merci à cette grande dame que vous connaissez tous. Merci à cette magnifique épouse et à toute ma famille pour leur soutien de tous les jours. Avant de terminer, je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire de mes chers parents disparus et devant celle de mon grand frère qui nous a quittés à quelques jours des élections locales. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les accueille dans son firdaus éternel. Monsieur le ministre, il ne me reste qu'à vous souhaiter plein succès dans cette nouvelle mission. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vos pas et éclairer votre chemin dans ce ministère stratégique et transversal. Je voudrais vous remercier tous de votre participation spontanée à cette cérémonie de passation de service. Je vous remercie sant naa leen gërëm naa leen. gannaaw bu ma nuyoo le nouveau ministre suma xarit suma frère suma dëkkandoo ñaari yoon dëkkandoo ci table conseil des ministres parce que man ak moom ñooy feggoo waaye dëkkandoo fële fi nga xam ne mooy la commune de Mbao une commune qui m'est chère monsieur le ministre maa ngi lay nuyu yow ak sa njaboot di nuyu waa Plateau di nuyu waa commune de Mbao di nuyu waa département de pikin di nuyu waa Orkadiéré ak département de Kanel di nuyu région de Matam ak bépp région du Sénégal damay tàmbali ci sant yàlla sant yàlla ci lim ma defal ak nim ma ko defale sant yàlla boobu may sant yàlla mooy ci baatu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin tey laa am ñetti at ak juróomi weer sur la par la grâce de Dieu et par la volonté président de la République ci bopp ministère de l'environnement et du développement durable depuis 2019 man le président dénk ce ministère stratégique et transversal moo tax dama koy sant gërëm ko feddali suma kóllëre ak moom waaye feddali sama engagement ak sama loyauté monsieur le président maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm monsieur le ministre ci diir bu gàtt jot nañu teg ay jéego fii ci ministère de l'environnement et du développement durable jàpp naa ni am na lu bari lu des waaye je pars la tête haute waaye avec un esprit tranquille parce que ki ma wutu jàpp naa ni bu soobee yàlla dina jël ministère bi yóbbu ko feneen fu gën a kawe bu soobee yàlla loolu laa lay ñaanal monsieur le ministre di la wax ne ginnaaw bu ma jaajëfalee l'ensemble du personnel du directeur général directeur national ba ci agent bi gën a suufee ci wàllu organisation ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen ñoom ñëpp maa ngi leen di baalu àq di leen jéggal di leen baalu àq ci dëkkandoo di leen baalu àq ci li ma tey di leen baalu àq ci li ma teyul sama missiyon ñoom ñoo ko gën a yombal ci biir ministère de l'environnement monsieur le secretaire général maa ngi lay chargé nga remercier ma personnel bi yépp su ma mënoon tey damay jóg ku nekk ci ñoom ma jox la loxo wax la ni maa ngi dem ci cant yàlla bu baax waaye maa ngi dem ci remercier leen ci xol bu sedd guy ci cadeau yi nga xam ne jox nañ ma ko léegi ñaari kaamil ci benn bés nit musuma ko defal ñaari kaamilul alquranil karim ci benn bés walla ci benn waxtu ñu jël jébbal ma ko awma seen pay yal na leen yàlla fayal boppam sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp képp ku fi jël kàddu sant naa la gërëm naa la waaye mënuma sant gërëm assez walla lu doy la commune de Mbao mon village Orkadiéré qui m'a vu naître. Ce village de Mbaou qui adopté. uuf ma jël responsabilité bu mag bu gën a kawe ci commune bi teg ko sama lox maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di feddali sama kóllëre ak yéen maa ngi leen di renouveler sama confiance waaye comme ni ma leen ko waxoon la mission continue nañu taxaw temm jàppale ki nga xam ne en 2008 moom moo ma taxoon a jóg pour jàppale ku mu jël réew mi yàlla dogal na ko maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax sama discours nag amul feneen fu ma ko mën a daanale yaakaar naa ne miin ngeen sama daaneelu discours yéen ñépp xam ngeen ko xam ngeen fi ma doon daanale te tey du doon exception fi may daanalee mooy li may wax man ak yàlla xam na xam naa moom xam na yàlla xam na xam naa te moom xam na tabaaraka wa taala moo ñu wax ne wa ma shahidna illa bi ma alim naa du mukk lu dul dëgg maa ngi seede ni soxna su baax laa am ku ma jàppale ci bépp fànn ku ma jàppale ci bépp fànn su ma tumarankewul ci jaar-jaar yi ma am ginnaaw yàlla jàppaleem la maa ngi ñaanal suma ñaari wayjur ñi nga xam ne lépp ñoo ko def ci man suma pàpp moo ma dalal baa moo ma jàngal alquranil karim yàlla na ko yàlla yóbbu ci àjjana yu gën a kawe sama jur bu jigéen jur bu jigéen bu baax la yàlla na ko yàlla xare ajana ces moment nekk na moment yoo xam ne damay profité pour ñaanal sama mag bu góor bu génn àddina avant les élections locales nekkoon aussi kenn ci man ku ma jàppale woon ci lépp lu may def yàlla na ko yàlla yërëm yërëm bépp mboolem jullit maa ngi sant sama mbokk yépp mbokk deret ak mbokk dëkkandoo bàyyiwuma ci kenn ñoom ñépp maa ngi leen di sant ci taxawaay bi ñu am sama wet durant ces années de combat waaye jàpp naa ni le combat ne commencer le combat militant ne fait commencer parce que ñun li ñu bëgg mooy fi ñu téye ñu téye ci ba du daanu mukk ba ilaa yow mi diin nañu téye téye ngir yàlla nañu téye téye ngir yàlla nañu téye téye ngir yàlla monsieur le ministre maa ngi lay wax sama disponibilité fépp foo woo dinaa teew ngir sa jëm waaye ngir Sénégal bi ñu bokk waaye ngir ki nga xam ne moom moo moo la jël teg la ci bopp ministère de l'environnement lépp loo xam ne denc naa ko ci expérience denc naa ko ci wàllu xam-xam te nga soxla ko pour wéyal ministère liggéeyal ministère bi billahi laa ilaha illa huwa soo ko soxlaa mu ngi sa loxo sa ndam mooy doon sama ndam sa ndam mooy doon ndamu président ndamu président mooy ndamu Sénégal ñun Sénégal rekk moo ñu ñor sant naa yàlla santaat yàlla sant yàlla santaat yàlla sant yàlla santaat yàlla alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. am na ku mbaa ngi xam dang waaye dina dem mbaa ngi mbaaw Wamba ndeysaan ma dagg tuuti rek dafa am cinq minutes ma bëgg a wax rek parce que tey sax dama ne am na ñëwal mën nga ne cinq mu nekk deux mais dafa am loo xamante ni mënu ma ko ñàkk bañ a wax ndax Abdou Karim Sall ñu bokk dëkk ñu dëkk Ba muy sunu maire barki Seydina Mouhamed voté ñu ne ma man sama waa kër gi ñu voté parce que organisé nañu man man Gorgui Ndiaye bu ma xam may voté ñu ne ma doo voté parce que organisé nañu parce que dafa am lu ñu bëggoon mais moo voté yàlla may ñu jàll. Ah waaw kon xam naa ko bu baax xam na ni lislaam parce que lépp lu muy def day wax alxuraan man loolu bokk nañu tax a kon dañ lay ñaanal yàlla li ngeen gëm yàlla defal leneen lu gën. alal yooyu nag yéen laay wax yéen ñi nga xamante ni dañu leen nekk fii barki Seydina Muhammad Rasulillah bu dee liggéey amul kenn ku ko gën a liggéey amul kenn ku ko ëpp yërmande barki Seydina Muhammad li may wax ni dama waat lekkul bàyyi kenn kon Aliou yàlla na yàlla defal ca yàlla na yàlla defal ca yàlla na yàlla defal ca yow ku ko doon ci mbaaw yàlla nga àggale sa sànni man li ma defal gis naa ko de yaa tax na ma yow ma fekk kon dama lay ñaanal nag yàlla nga àggale sa sànni ci bàq si ñaaw di wax nag waa ministère bi bàq si sëñ na Mouhamed na seen xel dal Allo Amen. essayant de vous imiter un peu, mais je ne sais pas si je saurais vous égaler. Mes remerciements également mon épouse qui est ici présente. Mais également mes enfants pour l'ensemble des œuvres et sacrifices consentis depuis toujours. La charge publique, elle a son lot de sacrifices généralement, peu connu du grand public, qu'Allah les gratifie. Ma reconnaissance et ma gratitude vont, comme vous le savez, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu me renouveler sa confiance en me nommant sur proposition de Monsieur le Premier ministre à la tête du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Mon engagement indéfectible ne sera jamais, ne fera jamais défaut pour honorer cette nouvelle charge après le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Je mesure avec fierté l'importance de ce département transversal, dont les missions sont à la dimension des efforts attendus de toute l'humanité pour la survie de tous. Je suis conscient des nombreux défis de l'heure, mais je demeure persuadé qu'ensemble, nous les releverons avec brio. De mon côté, je ne ménagerai aucun effort pour répondre aux multiples attentes et préoccupations de tous les acteurs du secteur de l'environnement. C'est naturellement une œuvre collective qui nous attend et que nous devrons ensemble mener pour atteindre les objectifs que le président de la République, son Excellence M. Macky Sall et M. le Premier ministre assignent au département. Je profite également de ces moments solennels qui constitue mon premier contact avec vous. Cher personnel du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, pour exprimer ma disponibilité et mon ouverture afin d'intensifier l'action du département. Monsieur le ministre Abdou Karim Sall, chers frères, Je voudrais à ce moment de mon propos rendre un vibrant hommage à mon frère et collègue, le ministre Abdou Karim Sall, avec qui j'ai cheminé pendant près de ans dans le gouvernement. Votre détermination, votre abnégation, votre engagement, votre persévérance et votre courage vous ont permis de faire rayonner le ministère de l'Environnement. En effet, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés durant votre magistère. loi sur le plastique beaucoup de débats énormément de débats en conseil des ministres loi sur la biodiversité le code de l'environnement etc pour ne citer que cela le dernier acte que vous avez posé la semaine dernière en présidant la 18e session de la conférence des ministres africains de l'environnement en est une illustre, parfaite illustration. Je ferai mienne toutes les décisions que vous avez prises en présence de vos pères. Je m'emploierai à m'inscrire dans ce sillage pour porter plus haut les résultats obtenus par ce département stratégique, car les échos et témoignages qu'on en a entendus sont plus qu'éloquents. C'est pourquoi, en vous tendant la main, j'invite toutes les forces vives de notre cher pays, forces de défense et de sécurité, élus nationaux comme locaux, chefs de service ou de projet, partenaires techniques et financiers, femmes, jeunes, leaders d'opinion, notabilité religieuse, coutumière, bref, toutes les composantes de la société, pour qu'ensemble, la main dans la main, nous conduisions la mission et constituions un véhicule performant de développement socio-économique. Notre credo sera le travail, le dialogue, et la concertation dans le respect strict des lois et règlements de notre pays. Mesdames et Messieurs, permettez-moi enfin de remercier tous mes collaborateurs du ministère des Pêches et de l'économie maritime et à l'ensemble des acteurs de ce secteur également porteurs de notre économie qui ont contribué aux résultats que nous avons eu à obtenir. Je remercie tous, d'une part, pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et d'autre part pour l'affection des populations de la commune de Dakar Plateau celle de Mbao celle la ma lay wax nag ah les notabilités religieuses et coutumières qui ont tenu à m'accompagner ce matin j'aurais bien voulu citer individuellement tout le monde mais sachez que votre action quotidienne à nos côtés nous motive à toujours mieux faire pour notre cher et beau pays Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, en cette circonstance, pleine d'espoir et de symboles, je voudrais réaffirmer ma disponibilité, mon engagement et mon ouverture. Je vous invite à redoubler d'efforts pour matérialiser la vision du président de la République, déclinée dans le plan Sénégal émergent vert, dont la structuration vient de s'achever. je mettrai en place les organes exécutifs et soumettrai toutes les réformes validées par le Conseil des ministres. Je voudrais, avant de clore ce propos, partager avec vous, mes très chers collaborateurs, notre ligne de guidage qui consiste à gérer les idées, des initiatives, des projets et des actions, en y adhérant volontairement pour améliorer le fonctionnement du ministère et de ses démembrements, et pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés. je sollicite vos prières pour que la mission du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique soit couronnée de succès, à la grande satisfaction des populations et pour mériter la confiance des plus hautes autorités. Je vous remercie de votre aimable attention. mbokk yi da gar bu ñu paree rek nga ne wolof ndax doo mën a mën làkk lébu la tey lébu yi aayu ñu aayu na kon na ngeen baal ma jëm ko gàttal tàmbale nuyoo sama xarit sama mbokk Abdou Karim Sall di ministre de la République mi nga xam ne ku xamul rek mooy réera dënni compagnon la bu président la République rek bu mu fonk la kon ñu tàmbali nuyu la bu baax ci ni ñu dalalee tey fii xam naa moo waral mbokk mbaay yu gunge la pour dalal ñu dalal bi wat ñoom it ñu ngi leen ci sant di nuyu secrétaire général ministère bi di nuyu directeur généraux yi fi nekk yëpp directeur nationaux yi chef de service yi waaye itam agent yi fi nekk yëpp partout dans le Sénégal di nuyu askan wi li ci seppi waa mbaaw ak waa plateau di nuyu nag képp koo xam ne yàlla def na nga teew fi tey ñu lay gërëm ci teewaay boobu tam lay sant suñu borom julli ci yonentam bu tedd bi gërëm suñuy waajur dama doon wax léegi ci kàllaam may tubaab ne man awma sëriñ ñaar laa ci yoon mooy sama wayjur bu góor El Hadj Ngiroon Ndoye bi fi toog jàkkaarloo man xam naa fi mu ne nii bu ñu génnee mu ne ma lii lii waroo ko woon yal na yàlla guddalee fanam gën a dëgëral cër muy suñu royukaay sama beneen sëriñ nag mooy ajaratu amel yi ñuy jàkkaarloo man fii ak gauche bi mu yeewee tey daf ma ne mbaa mën naa ñëw ma a ko ah, ah kay bu leen neex bu leen soobee <laughs> kon nag moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a dëgëral cër yi yàlla na ko yàlla fay lépp li mu jël def ci ay doomam nii en tout cas ñun euh, dañu bëgg ci yéen dañu kontaan sama rakk bu jigéen bee toog sànq wax bi mu woyee fii ñu bëri mën nañu jàpp feneen la bokk waaye moom ndeyam di ko jur ak sama baay bii jàkkaarlu ñoo bokk ndey ak baay maanaam sama sama doomu bàjjen ñun nag lébu loolu la ñu baaxoo doomu bàjjen moo lay moo lay tagg mooy wax say baax muy seeni bu dikko maa ngi koy nuyu mu toog sama wetu soxna boo xam ne moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam yàlla na ko yàlla jàppale la ñu def yépp ci seen i njaboot yàlla na ko suñu borom fay leen ko ci seen i njaboot seen i doom ñu doon ay doom lislaam doom ay doom yu amal njëriñ réew mi jub dëggal fonk seen réew ah ngeen may ma itam ma gërëm président la république bi nga xam ne moo ñu tabaat ci biir gouvernement bi ci ay xalaatam mook premier ministre lu jàpp ni fa ma ne newoon war naa fa mën a jóge ñëw fii lépp nag di secteur boo xam ne ñu bëri dañ koy réeré biir waaye ay secteur la xam ne ñooy xool presque ci lañuy def ci suñu suñu dundin te tey yàlla def na malheureusement amul réew boo xam ne du toog di waxtaane lii parce que lii moo mën a aar planète bi wala moo ko mën a sànq ba kon ñu ngi koy gërëm président de la république di ko sant di wax nii defaguma passation fële ca ministère des pêches waaye gis naa fi ay acteurs de la pêche gis naa fi samay directeur quelques-uns ñu fi nekk waaye gis naa itam ay acteurs loolu doy naa sant yàlla démb dama leen dajaloon di leen tàggu doon bañ xëy na mu demee nii te jour ba waaye xëy na yà am na lu ma yàq lu ma waroon naa leen bàyyi ba ñu xumbal tuuti ñëw waaye buggoon na ma bëggoon dem sans tàggu leen ñu toog waxtaan te ma gis ay agents déterminés de l'État xëy yu mën a am ay jàqare de temps en temps waaye yoo xam ne Sénégal moo tax ñu xëy di gont kon ñu jara fonk la ñu jara respecté maa ngi fay bàyyi dem njaboot yoo xam ne macha allah ñu ngi sonal Sénégal kon euh, xam naa ni fii def yi bëri na dañu war a jànkonteel fii bëri na waaye nag maa sant yàlla fee ma jóge ay technicien fa ne bu ñu nee pêche dañu xalaat leen waaye ay technicien ñoo fa nekk parce que ñama laan jëflanteel ay ingénieur alliés lañu ay docteur vétérinaire et cetera ay officier la marine ba samay direction genre yooyu ñoo ko yore ko ay DPSP yooyu c'est des capitaine de vaisseau ñoo ko yore kon moo ñëwee fii itam te technique Ah, ay tëju gàtt gàtt nu ma dafay sama xel day gën a dal rek xëy nañu ci feñ ñu mooñee la ñu am ci yaakaar monsieur le ministre du ci guddal parce que dafa tàng dama koy yemale ci cant boobu ak gërëm bi jox assurance samay collaborateur yi ma yàlla booleel tey ci coobare président la république que maa ngi tàllal samay loxo ubbi samay bunt jox leen sama disponibilité lépp ci li nga xam ne liggéey bi loolu la laaj ci dëgg ak li jubóog li nga xam ne moom mooy intérêt wu Sénégal moom mooy intérêt askanu Sénégal yooyu bu jubee rek ca la ñuy jëf jëf réeróo du ma sa am kon maa ngi leen di en jox sama loxo fàttali ni liggéey bi seen liggéey la parce que mooy seen métier la preuve ànd ngeen ak sama mbokk mi ñetti at tey keneen day ñëw dañ fi ñëwoon fekk leen fi day dem ba fi parce que mooy seen métier kon li ma wax fee ci pêche yëf yi ci seeni loxo la ne ci seen taxawaay la ne pour que justement li Sénégal di xaar li askan Sénégal di xaar ci département bi ñu mën ko gis ci lu gaaw ci lu gaaw parce que nag am naa yaakaar ci yéen ni suba rek ñu tàmbali du dëgg kon daal monsieur ministre danaa la seet si mbaaw da ne loo yor bu ma ko soxlaa mu ngi amaa disposition loolu awma ci xel ñaar foog naa ne ci bureau bi fee sax wax naa la nee la ah bul foog ne yaa ngi noppaliku daa mel ni da nga fi des rek doo noppaliku parce que yow ak man benn lañ benn avril lañ am benn intérêt benn bëgg-bëgg lañu am mooy lañu dénk te ñu jàpp ni bu doxee njëriñ Sénégal la nan la fexe ba loolu ànd ci li mu gën a gaawee loolu nag soxla nañ ci njàppandal suñu borom soxla nañ ñaan suñu waay jur yi may sant yàlla yàlla ñu ci yàlla bàyyi loolu lool lool suñu kanam ñu ñu koy defal waaye sant nañ suñu détermination ak suñu engagement collaborateur euh, itam njàppandal bi toujours xam naa ni kii moom du caagi ni toogul conseil des ministres yenn saa yi mooy def plaidoyer danaa ko buuxle parce que dana dajeeg parfois ci kii yor kàddu bi te foo xam ne du ma fa teew kon nag yàlla ñu yàlla jàppale yàlla na yàlla jàppale fóot xol yi boole nit ñi xam ni d'abord liggéey moo boole nit ñi te liggéey ci dëgg lay lalu boo ko defee rek du am problème ak kenn ci li ma jàpp lenn nag sama xam-xam sorewul waaye loolu laa jàpp tant que liggéey te liggéey bi c'est technique c'est tout buñ ko respecté jox ko ak xam ah normalement ku xam ku ma xam tuuti xam ne du du ñu am ay kàddu yu ñu weccoo yoo xam ne dañ la xaw a jaaxal kon nag euh, nañu jàpp ni Abdou Karim xëy na sax naa la defal double bureau yi saab yi ko yóbbu fii <laughs> moom sa kër la parce que yéen yaa fi ne woon yaa fi continuer nekk parce que président la république yàgg nañu ko wax conseil des ministres nee na gouvernement du man du ab jëm du département gouvernement collège démb maa ngi doon wax fee samay acteurs ne gis ngeen ni yàlla def mosuma xalaat département bi yenn saa ñu ne ñu air marine protégée gaa yaa ngi fële di samp wala di tëj ñun waa pêche ñu naan mais ça veut dire quoi ça lu tax tàgguñ ñu ko wax ngeen ñun man leen gis nga léegi man mi doo wax loolu ak yéen fii léegi ñu may yóbbu fële kon loolu ci xeetu expérience lay bokk parce que xam naa de l'autre côté euh, nan lañ koy dundee et tout étant état tout devant fonctionner de façon huilée donc dañ la jox yenn réflexe yoo xam ne nañ ci waxtaan du ñàkk kon nag yàlla ñu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla may Sénégal bu naat Sénégal bu développé Sénégal bu jàmm Sénégal boo xam ne saa yu ñaari sénégalais defee nii seen loxo yàlla nañu yàlla may ñu tànn ka ca gën ci askan bekk réew mi fépp nag ci ba ci jaaykatu boutique bi sax parce que réew mi loolu la soxla maa ngi leen di gërëm di leen sant di remercier monsieur le ministre magana